السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده بسم الله الذي la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul alim raditu billahi rabba wa bil islami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallama rasula mbokku téléspectateur ak téléspectatrice su RTS yi ñu ngi amati mbégte di janoo ak yéen comme niñ ko baaxoo fajar wu nekk ci waxtu wii ni di ñaan borom bi subhaanahu wa ta'ala yal na may ñu yendoog jàmm niñ ko baaxoo saa su nekk di ànd ak yéen ziyaara ji kilifa diine yëpp ñaanal leen borom bi subhaanahu wa taala yal na yàlla sàmm yal na yàlla wot yal na yàlla defal leen xibs defal leen riaya dëgëral leen ba kàttanal leen ba li ñu war a bay ci waar wii nii yàlla yombalal leen ko te nangu leen ko noonee la ñuy ziyaare kilifay réew mi di leen ñaanal borom bi subhaanahu wa taala sàmm akuk wottu yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla dëgëral leen yal na yàlla aaral aar leen yal na yàlla subhaanahu wa taala boole leen ak entourage bu baax yu dëgg yoo xamante ne dañ leen di jàppale ci dëgg di leen ko yombalal moom la tuddee albitaanata alsaaliha allati tuiinuhum ala yu baax yoo xam ne dañ leen di dimbali ci yoonu dëgg di leen ko yombalal niki noonu la ñuy ànd di ziyaare kilifay kër gi la RTS ñaanal leen borom bi subhaanahu wa taala leen yàlla sàmm yàlla aar leen wattu leen yàlla dëgëral leen kàttanal leen ba fi ñu bëgg yóbbu kër gi yàlla yombalal leen ko lépp nekk ndamuk Sénégal di ñaanal bépp agent boo xam mu ngi fii ci la RTS yal na ko yàlla subhaanahu wa taala sàmm wottu ko yàlla kàttanal ko barkelal ko sàmm ko sàmm njabootam noonee la ñuy ànd ak yéen ñaanal ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lalu hôpitaux yi ñaanal leen borom bi subhaanahu wa taala yal na yàlla yëkkati leen yal na yàlla fëgg seen bopp yal na yàlla subhaanahu wa taala delloo leen aafiya defal leen wér gu gaaw goo xamante ne du bàyyi benn jàngoro seeni yaram tëdd wi ñu tëdd feebar wi yàlla na nekk ak laab gu leen di seetal ci seeni bàkkaar niki noonu tamit la ñuy di ziar sunu mbokk yi nga xamante ne tey jii nii dañoo tënk seen dem ak dikk ñu nekk ci bërëbuk yarukaay yi yal na yàlla subhaanahu wa taala xettali leen génne leen ci jafe-jafe jooju la ilaha illa anta subhaanaka inni kuntu min alzalimin mu nekk lu ñu leen di jox pour ñu koy saxoo ndax yàlla subhaanahu wa taala teggil leen tiis teggil leen naqar ñu dellu si waat ci njaboot gi ngir ne Sénégal doomam yépp la soxla pour que ñu ànd tabax ko ñu jaar ci kaw yoonuk émergence yoonuk li nga xamante ne moom mooy développement niki noonu tamit la ñuy ànd ak yéen ñaanal suñuy ñaari jur ñaanal leen borom bi subhaanahu wa taala ñi ci des di dund nekk ak ñun di dund yal na leen yàlla subhaanahu wa taala sàmm aar leen yal na ñu leen yàlla subhaanahu wa taala sàmmal aaral ñu leen ñi nga xamante ne ñoo ca jiitu ci ñoom yal na leen yàlla jéggal yal na leen yàlla yërëm yal na leen yàlla dëkkal aljanay firdaws mbokk yi seetaan biddeewu xeet wi jotaay wi weesu ñu ngi woon ak sunu ñaareeli biddeew di Omar ibn al-Khattabi anhu jàmbaari lislaam googee nga xam ne ñëwoon nañ ci na mu woon ak ba mu yegsee Madine nañu doon xaaree yonent bi sallallahu alayhi ñëw nañ ci xaar gañ doon xaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak egsi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yegsi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na Médine ba mu yegsee Médine waa Médine dalal nañ ko teeru nañ ko la amoon seeni alal génnee nañ ko xaajoo nañ ko ak seen mbokk ya jóge li nga xamante ne moom mooy mba màkk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama tàmbalee tabax li nga xamante ne moom mooy réewub jullit foofee ca madina jël abu bakar ak umar ibn alxataabi radiallahu anhu taf leen ci boppam ñi di ko xelal muy diisoo ak ñoom ñu di ko jox seen xel mu rafet di diisoo ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ko laaye biir mu nekk ñaar ñoo xamante ne gunge nañ rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muy Abu Bakar ak Omar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu mbokk yi Omar ibn al-Khattabi radiyallahu na koo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da kaa cofeel ëmbaloon ko li nga xamante ne moom mooy mbëggeel Omar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cofeel gim ko ëmbaloon mbëggeel gi nga xamante ne moom la ko ëmbaloon mu ngi nekkoon ci kaw xam gi mu xam dëggu ko Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu xërëm ci yoonuk dëgg engagement wam ci yoonuk li nga xamante ni moom mooy dëgg sàmm gi muy sàmm kàddoom sàmm li nga xamante ne moom mooy principe am yéwén ci wàlluk joxe ci yoonuk borom bi subhaanahu wa taala nekkoon koo xamante ne ku tab la joxe ci yoonu borom bi subhaanahu wa taala ñeme woon li nga xamante ne moom mooy dëgg ba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam comme ci hadis bu wér bi nga xamante ne imaamu tirmidi da koo solo mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne law kaana nabiyun baadi la kaana umar bin alxataabi radiallahu anhu su fekkoonte ne am na weneen yonent wu mun a ñëw sama ginnaaw du doon kenn ku dul umar bin alxataabi radiallahu anhu mais ni ngeen ko xamee moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama moom mooy xaatamu nabiyin moom mooy ki jeexal tëj buntuk li nga xamante ne moom mooy akuk yonent wala possibilité wu nekk yonent bu yàlla subhanahu wa taala di yónni ci jaam yi cofeeluk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbëggeeluk yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bi mbëggeel ak cofeel gi mu dencal Umar ibn al-Khattabi anhu dund ak moom ci anam woowee ay xadis ñëw nañ di ñu ko nettali jëlal beneen xadiis bi nga xamante ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo koy wax muy wax moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha taala jaala alxaqa ala lisaani wa qalbi wa mu ne yàlla subhaanahu wa taala dafa jël dëgg def ko ci làmmiñu umar ibn alxataab ak xolom moo tax Omar dafa dëggu woon moom Omar ibn al-Khattabi anhu Abdurrahman Anas ibn Malik du moins radiyallahu anhu dafay wax ne aw bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yéeg ca kaw montagne li nga xam ne moom mooy Uhud mu ànd Abu Bakar ak ki nga xamante ne moom mooy Omar ak Uthman ibn Affan radiyallahu anhu bi ñu yéegee ci kaw montagne parce que montagne Uhud yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy jàngal ne Uhud montagne la boo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa da koo bëgg montagne bi tamit bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk beneen dimension boo xamante ne yëg-yëg ak euh, teewlu mooy permettre doomu aadama mi mu yëg loolu moo tax toujours dañuy faral di wax ujaa ci bu ñu demee ziyaara ji Uhud yéen a ngi ci bërëb boo xamante ne bërëb bi dafa bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkente ne doj xeer moo bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa yow doomi aadama bi yow jullit bi war nga gën a tàggat sa xol pour mu bëgg ëmb cofeel ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anas ibn malik radiyallahu anhu dafay wax ne aw bis rasulullahi sallallahu alayhi wa ak abu bakar ak omar ak uthman dañoo yéeg ci kaw montagne Uhud montagne bi daal di yëngatu bi mu yëngatoo sang bi sallallahu alayhi wa sallama dóor ko ak li nga xamante ne moom mooy tànkam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallama këdd tànkam ci kaw montagne bi dóor ko fa darabahu bi rijlihi mu dóor ko ak li nga xamante ne moom mooy tànkam daa di koy wax ne ko uthbut ya uhud fa ma alayka illa nabiyun wa siddiqun wa shahidaan yow uhud dalal ngir ne sa kaw yonent moo fa nekk ak siddiq ku dëggu ak ñaari martir lii moo nekkoon cofeelu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci Omar incha allah su neexee yàlla suba ñu yeggaliwaat beneen jaar-jaar ak taxawaay ci Omar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu wooy leen continuer di ànd ak suñuy programme jeexul yeneen i programme yu am solo mu ngi ñëw ñu yendoog jàmm ba suba salaamaaleykum wa rahmatullahi wa